demee ñu kale la parrainage nga dem làkkatu ci benn coalition euh, bi nga xam ne jàpp nga ne moo war a gañe après ñooñu bu ñu gañee nga toogaat pour un nouveau bail. mais pourquoi pas. ah pourquoi pas. bu ñu la suñ ma recalé par parrainage. parrainage que que que que vais-je donc da ngay dem ànd ak coalition. ka ma wóolu xam ne ñoo bokk programme. Ah. déglu ma déglu ma ka ma wóolu xam ne ñooy bokk programme. te man yaakaaruma sax ne dinañ ma kale. non mais bu ñu la non mën nga jàll mais ñu la recalé tey. ci ñi nekk ci yaakaaruma ne dañ may recalé. ci ñi nekk ci làmb politique parce que loo xam ne laaj nañ ko parrainage je vais le doubler. ma ne ci ñi nekk ci làngu politique bi kan nga xalaat ne seen gis-gis xaw na. loolu du tey laa koy tontu mënuma ko tontu. mais bu ñu la recalé di nga rejoindre une coalition. mais ñaanuma yàlla ñu recalé ma mais bés bu ñu ma recalé recalé je vais jamais aller avec le président de la république. c'est fini c'est fini c'est fini. ad vitam aeternam si tu l'appelles comme ça en tout cas c'est fini man du ma wax di waccu di ko lekk di ko lekkaat je suis pas ce type ma noonu ay valeur ñun bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy suñu yaay suñu papa yi di yar daf ñu xamal ñun ñooy kan daf ñu xamal lan mooy kàddu daf ñu xamal lan mooy gor moo tax am na yoo xam ne man su ma ko defoon waa Chine ñooy njëkk a njëkk a jaaxle ci man Arouna Coumba bi dafa am lu mu signifier c'est des valeurs ci ay ascendance ak fa nga jóge am na lu ma war am na lu ma war. et vous pensez que valeurs yooyu préserver nga ko ba tey. ah yaakaar naa ko de. Hmm. parce que mosoo ma yow dégg ci lenn loo xam ne Arouna Coumba Ndoffène dañ ko ci jaaj ne ko lii waroo ko woon wax wala lii waroo ko woon def mos nga ko dégg.